sang بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى المختار المحلوم سيد الكريم ابن الحسن أبو عيسى روح رب الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام لاي المهدي عليه الصلاة والسلام وعلى آله wa ashaabihi at-tayyib min at-tahirin sang bi ne ñu ngi sant sunu boroom bu baax di bége yonentam bu tedd bii mu wàcceel fii ci sunu dëkk bii di Sénégal ñuy gërëm sunu borom bi mu ñu cërale bi dajale rasulullah ak yonti yalla isa alayhi salam di sunu dëkk bi dimbalinu womatnu ba nu ràññee leen gëm te topp leen ñu ngi sant buur boobu 1883 ba sunu ni tey 1909 lii xew ci suuf si ci place bi ñu toog orateur bi wax na ko sànq wax solos barab bi ak julli fi sang bi julli ak li fi xew ca 1909 tey jii fees na dell dëkke nanu ko te ñi ko dëkke de ñu ngi dégg fi mu ne rajo yi ñuy wax waaye xamuñu sax histoire barab bi Vatican ca Italie ca 1909 ñoo yabal seeni kilifa sanga bi ne muy fàttali ne leeruk sanga bi ñi ko gis muy toxoo penku di ñëw ci saw bi bari na ca ñoo xam ni ay chrétien lañu woon yàlla won leen leer ga ba sunu jonni tey sanga bi ne ñu ngi gërëm chef de village ak notable yi koy jàppale waaye balaa muy jàll mu ngi ñaanal sunub xalifa wéy juróom wa sunu yaakaar ja seydina muhammadul muxtaar ibnu ma njoon ñu ngi yeesal sunu pas-pas sunu ngëm rot sukk sunu ñaari oom ci suuf raam wuti ko te dénkam yu sell ya foon ca leeru maamam ya ak leeru baayam ya leeru magam ya ak leeru boppam ndax tey fii moom ci jëmmi boppam moo taxawe jëmmi maamam li ko tiim du dara lu dul sunu boroom sunu boroom dong ko tiim moo taawu àddina ci ku xam ak ku ñu ngi koy ziyaar ziyaar bu mat di ko ñaanal yàlla yàlla dollik wéram dolli ko fee yàggal mu yàgganoo wuuf ba li mu naal yéene ko yàlla sama boroom may ko mu yeggale ko ak sagoom sanga bi ne di ñaanal ay rakkam ka mu jox baatam di baayam seydi muhammadul amiin ak i rakkam di ñaanal ahlu bayti bi yépp ah ahlu laay gépp di ñaanal jullit ñépp di ñaanal kilifay jullit ñépp sëriñ mbay jërëjëf seeni ak alasaan jërëjëf njàppaleeg yaayi soob jërëjëf kii dey ba ko sama baay di mu xaddamal man dong maa ko seede ca perong ba nee su ma juumul dey booba de jegewul fanweeri at seen sax ñaar fukk matoon na am ca pays bu mu ne bu dul senegaal sama baay ne ko sa maam nee na te ba mu naan maam dey boroom jàmmalaay Seydina Limaam moo tax Seydina Maamal Saan daawul mu xaddamal te du jàmmalaay la jóge ca maamam maamam ne ko mu xaddamalal ma diw sidi abdoulaye ini dama matok, muy wax samay nopp may dégg ma seede mu sëgg ndaysaan ak kersaam giñu ko xame sang bi ne masuma gis cedara, dara lu dul diine ak tàng lool ndëkk te tàngoor wa du dara lu dul moom kuy cabaxa diine ji walla ku dese taxawaay daf koy derange loolu mënu ko muñ dama ci ndëkk bokk ak moom man ca perongu Baye Seydi caw gannaaw ba dinaa ma njoon demee ndax fekke naa ko moo ma tuddalu génne ma yoof ma génn yoof bàyyi Seydi Thiaw Seydina Maamal Saan boobu maam Babacar demagul bàyyi Abdullah ci diggante yi lañu yaroo Sëriñ Bas ba ci shérif alxuseyn sang bi ne nii mu mel nii rekk la ma sa mel pap yow dey sama mag nga sama kilifa nga alaaji pap gay dëkk bii nga ne yow de xam nga li nu séq ba mbir ma mettee ca xunta ma Pape Gueye taxaw ca xunta ma jël téléphone am wax ak ministre ba dimanche ja ca topp lañ ma yebal ñetti capitaine gendarmerie ak seeni mbooloo ñu jële fa lépp mu ngi nii toog diine ji dafa am fu mu tegu de bésu tey bii yaraax léegi màgg de manjaay ana Dalifort ak la wër ba fii yorax la waaye da ngeen jaboot tey kon ndëkk boo jabootee njaboot dëkk fii war na noo mën a yëngu ba nu xam ni kii jaboote am na njaboot fii mu boot lépp bés bi na ngeen ko téede yàlla jox na leen koo leen mën a àndal man dëkk bu ngeen amee sens ma ñëw baax na ndax man moom bu ñëwee xanaa mu poñe ma de aw ma fu ma ko jaar waaye daf ma doy fii mu ne fi ma di fi ñëw dama yàqataan rekk lii ma jël ci ay wax bëgguma ko woon fa mu dugge laa bëggoon rekk mu teeri ndax looloo ma yitteel samay wax walla sama kàddu yitteelu ca bu nu noppee ñu ñaan ku ne dem sanga bi ne mat na te na sëkk te xam na li muy wax xam na taarix du jaahil ci ndey ak baay la donn muy kabbeer mooy jal mooy jali bëkk mooy jali ngoone alasaani caba wallahi alasaani caba sàmba dafa njëkk doon séeneeg Alassane Alassane sexeeku seeni metitlu ko gàddaay dem ca àll ba fenku ndëkk la jublu ba mu yàgg ndijaayam ne nañu ko seeti fu nu ko fekk gorom xam ngeen luy gorom mooy go moom seeni moo gor àll ba ñu naan kaan gorop seeni caw maanaam fa seeni caw gor indi ko dénk ko ko caba njaboot ga gane àddina mu jël ca kenn di pee ko seex ba seexeeku di alsaan bonkalam yalla moma ndëg ci moom la yalla jaarale mindeefu yalla mu teddama na mu ko waxe alasan dem ñuy dimmali ji jihaar ñu ne leen dellu yéen yéen ay waa tànk yéen de du ngeen fekki diine ka leen koy wax mu nga ca alwaar du fii de dellu leen yéen du ngeen fekk se diine yéen diine leen di fekk mu mel ni ndëkk ndakaaru walla Sénégal kenn newu mel ni histoire booba kenn déggu ko wàcc bi fii mu mel ni dara xewul aji bu daayala mu mel ni kenn déggu ko xalaas xalaasalaay xalaasalaay sëriñ bay jërëjëf alasaan mat na sëkk yal nga gudd fan yal na la yàlla wéral yal na la yàlla daaral yal na la yàlla kàttanal may la dooley biir ak dooley biti sàmm la aar la taxawu la sa leeri maam foo mën a ne yal na sa waanu ci yow Serigne bay nee na yàlla defal la ko yow it Alassane bi jërë ngeen jëf ci góor ñaak jigéen ñi tey de tamponné ngeen tampon boo xam ni dimbali ngeen jëmma ji manul yor fële yor fii te yéen ñépp moo leen jaboote waaye lu ngeen di sumb ñëw leen ci moom tàgg ko tàmbali waaye lii day dem de sanga bi ne ñu ngi fàttaliku ndëkk ñaari soxna yi ak seeni nataal di bàyyi xel ci jëmm ji da daan jëflanteex Seydina Isa la di waxtaan ak moom jëhrëtan man day mënumaa gis maam si <laughs> sanga bi ne du nelaw ba macha allah waaye bi ne gis naa maam sii di moom man dey gisuma ko maa ngi wax sama baat sa kaw waaye kii ñëw na ba ci man fekk ma ma toog sidina isa rawla wax ko dara mu wax ma ko te lam may wax man dong ma ko dundu gennagul sama gemmañ mu andak ak mam yasin ñukoy ñaanalit waye lepp borom kërëma drame budul won mom dina metti de bu ko ne woon hey dëjul du bouger de man de ñëw ci man bu la nee déet bu ma la gis de boo doxee ñëw pënd rekk nga fay am ak saw ñax ndax mooy sab sanga de baayam di maamam di Seydina Maamal Saan moo ko yar moom xam na li may wax te moonu jàngal loolu soxna sangaam moo yor kàddoom bala ngaa wax ak moom dangay ngay tàggu sanga ba door a am kàddu wax ak moom ñun dey loolu lañuy jàng loolu la ñuy dox tée leen ji tée leen ko wor maalante leen ci seen biir sang yi ndëkk ku ngeen ci gis maaj leen seen yoon newul ca la Baay Ablaay daan wax golo bu déggee mbaw du lijjanti ndax ngóomam xaj la walla ab kuti day yéeg ba ca garab ga door a geesu xool ka ne mbaw waaye mbaw nga ne ah bu ndaw la mu fekk la fa fàdd wóorul ku ngeen ci gis wormal leen ko la muy def seen yoon newu ca ah man dey moom la ma sama baay jàngal moo taxoon bu gisee ñii xam nga lu mu leen di wax bàyyi raan alasaan yéen de ñeme ñu ma leen waaw kii lu muy wax nii bàyyi raan ana lu muy ragal ci ñun mu ne ma Alassane ma ne ka laay mu ne ma sa kër maam ku fi juddu boo naan cépp ñu lay sol sak may te yéen xaw ma lu ne ci yéen moo tax dama leen di moytu moo laay maraa kiisam bu nu ko raxasoon juróom-ñaari ndox juróom-ñaareel ba man attanuma ko mu di ma ragal kooku am na luy wax ak yow bàyyil xel ci kii toog ah daf ma def bàyyi ma bëgg koo noot lu sotti de day mel ni bëre bukki ak jiit léew léew bukki yanu ba biir weex dóor jiit ci suuf tëdd ci kawam jiit ne ko teffita mu tee noppa ya yuuxu jiit wàcc ma daan nga jiit wàcc ma daan nga moo ko war lu laay nanu moytu xeeb nit ñi ngëneel de mu ngi ci loxol yàlla te moo koy jox ku ko soob jigéen la goor la xamoo mandu ca waaye jël sab rojo dugal sa bopp aljana jël ñu ñun yóbbuñu sawara léeg-léeg nga dégg sax ku ne waxuma sax ka doon saaga kooku moom noonu la toll lu tuuti la as mbir la rek wallahi la sos ku mu tax nga raxasu moom nag ay waxam ku mu dal raxasal waaye laayeen dañ leen war a rey kaay rey ñu man de noppi naa kaay maa ngi nii te ka koy wax kat wallaahi boo toppee fa mu jóge di nga dugg ci àll bi xuus foo xam ni du fii yëpp fa la cosaanoo ñëw ba ndakaaru nag péex mi ëpp ko mu naan ñii nañ leen rendi yow fa nga taxaw di wax samay suufa di maa la may nga dëkk te xamoo sax cosaanal fa nga teg sab néeg ba noppi di ma raylu yow bu ma la joxul woon suuf waaw ana foo jëm xanaa nga war ma nga wormaal ma boog ngir suuf sama la jox man ngeen a wax ba aajiboo daayalaay ji dañ mukk abadan du dañ du waxi nit de yàlla du ñëw day yónnee ki mu yónni moo ko wax boo ko weddee demal rekk yow nga wax ko ca kaw léegi nga xam luy baat bi jàng ñetti téere di ñu bëgg ree ki wax dangeen ngeen defe ne ñun jànguñu alxuraan ji xam ngeen ba mu naan sa maam yaa mu mudassir xum da defe ne ay manto la rek yu mu muuroo déggoo wax ja xalax moo njëkk a wàcc xalam tegu ci mu zammil tegu ci mu dasir tegu ca alxuraan ne teg aa ki doon wax moom waxatul de ab diir bu yàgg xam nañu sax fan yi ñun cinq à six jours ban saara wàcci waat yonent bee wàcc kan mooy yonent bi mooy faatiya mu ne ko jógal yow mii bàmmeel bi ma la dugal jógal jógal lëndëm gi muuraay gi jógal dama la soxlawaat ca weneen wàccuwaay moom la sang bi doon wax sànq moo tax ba mu ne cëpp fii sam ko diinem julik yor yor fatiha alquran la wax be xana fatiha du alquran dedet fatiha du alquran waxnako sank alquran mu ngi tambale bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudan ba min aljinnati wan nas loloy alquran waye fatiha du alquran waaye ndëkk alquran mooy fatiha kuy fatiha mooy maamam mooy jëmm ji dox moo tax bàyyi maali mbay ni juróomi waxtu yi lay muy samp diineem jullit yoor yoor moom fatiha lay wax fële ni su ngeen jaxasoowee dem ci alquran gisoo leen ko dellu leen ca faatiha nga dem ca faatiha juróom-ñaari ay sabxan min almasaani mu ne nga xool faatiha boobu ki mu wàccel alquran ci moom moom ngay laaj li nga xamul ci alquran moo lay gindi fan la lay gindee demal ca xutaab ya kem ni alquran ñëwee la ñëwee nasalal malaayika war ruux jibril nee na ma boroom nee na fële démb alquran la bi alquran matee la leen dajale ne leen matal naa seen diine al islaam diinan waaye fii daf ne jàngal leen ma xutba yi jibril a ngi taxaw ratifié na ci ay mbir waye bam wagale dafa ni jotalna matalna Fole bamu ne len islamay sen dine ci la genna dina ndax bobu alquran je sina abubakir sina umar sina usman afana ñettelu khalifa ci lañuy doora mol alquran kitaab bi ci ñetteelu xilaafa ga ba mu dellu see fii xota bii bëccëg la ko buur ba woo lu mu ko jox wér dawa fële guddi la ko woo lu mu ko jox julli ba mu delloo mag mu jox ko alquran fii bi mu bi mu dellu jàmm lay yoof ngapparu mu yónni Seydina Jibril mu di ko jox xutba ya bi mu matee la ne jotal na matal na génn àddina yonti yàlla Isaa ñëw alayhi salaam dem Seydina Mandione ñëw dem Baye Seydi Thiaw ñëw ci ñetteelu xilaafa ga sa lanu mool xutba ya def ko téere juróom la ndëkk du juróom benn juróom benn ba dañuy waare ngir nit ñi ñuy jox lijaasa nan lañu war a mel ngir joxe wirda wa bu ñu la juree sax te amoo ndigal bul ko jox kenn bu la juree te jëloo wirda bokkoo ca ab laayeen la di tasab rek di teg te jëliwoo wirda bàyyi leen loolu géej la jëm pënd bu nu jéeri lay doon dangay ngay jëli wirda sa jël wirda mooy aslamtu nafsi ga nangu naa sak yonen gëm naa téye naa ñu jox la nga téye amul yeesal ci kër gi benn yoon ngay jël jéena da nga koy jëfe baa nga bàyyi dem ca docteur ba mu bindal ordonnance nga jënd garab yi teg ca kër ga toog di ko xool doo wér de léey mbir mi kooku ndëkk moo fi woote mu nga nele tëdd ca wetu géej te géej gaa ngi toj fu ne bàyyi ko fa moom yow ndëkk gisoo Moussa alayhi xamoo dëkk ba xamoo géej ñu ne la xar na géej nga gëm ko ba di ca daanu ñëw fii gis ku randal géej nga xam ne fii géej dafa randu nga pattar ñiisu gestu ne zëm booleeg noppi dauphin yi li waroon mooy man jullit la ñii kat seen xew-xewi doy na waar nga woo leen ne ñu ngi ndokkal sunu mbokki laye ni lii dey kaawteefu sunu boroom la jërë ngeen jëf waaye silence rek kenn du wax ñetti pettax bu nu naawoon ci yenn bés ya ca yenn barab ya kenn dootul dégg lii ndëg moom ñu pattar ñi su rek waaye ndëg heureusement ñun moom danoo regg ba noppi bu nu ubbi woon nañu maam Seydee ngële dañuy dem dékki dem añi ñun loolu nekkatul suñu problème xam nañu bu yàgg nangu nañu ba noppi naka ñenn ñi seetaan man damay jënd mburu diw ci dara mat dem sama yoon aw ma di xool asamaaw yow mii lay tiital ndax xam naa ne man moom la bu yàgg kii bari na ñu mu feeñu de laa yéen yee ca gën a néew ba léegi mu mel ni dara xewul xalaas laay mbay jërëjëf guddal naa waaye sant de maa ngi ànd ak waa Kunta mi sa gaa yaa ngi ni waa 19 maam Seydi basa ngi noonu Ibrahima ndëkk mooy Kunta mi sanga bi Mara jërëjëf sa maama ngok mbir maa lii de yéen a moom ñun amuñu jot mango kuntama àndaleen ak mbay rek moom ndëkk na ma bàyyi rek ma toog bu beneen yoonee ngeen ñëw wéttali ko maam yaasin bu ma la fa de yàq xalil ñoom ak sëriñ ngeen ñëw naan maan ak buya sanga bi def nu bëgg def neex naa dañu bëgg a ñëw fii bu ma kenn fekk seeti dégg ngeen li ma wax loolu laay leen di bàyyil sanga bi tey ndëkk sa baayab laay ne daf lay ñaan xam naa ni lii ma la ñaan dinga ma ko may dañuy joxe ñaan te yaay joxe ñaan bu ñu noppee góor gu tedd gi di pap sek mu tëjal ñu ñaan gi ñun ñépp ñu dellu ba déwén bu amee orateur bu war a waxaat ñu déglu leen bu ñu noppee ñu ñaan sang bi ne ci biir ñaan gi nanu ko jox xalifa bi rekk mu baawaanal ko roogalatti njaboot gi waaye ñu yéene waale ci waa daayire bi ak dëkk bi fii moom cité bu assuré la ba pare sanga bi ne ñu ñaanaaleel selu ba wallaay jàmbaar wallaay leer yi mu wax fii yal na dugg ci jëmmam filtre la fa ne génne ko ba mu set defal ko képp ku fi toog ndax ñii toogaale ay feebar bari nanu waaye ñu jàppale ko ci ñaan gi ba lii nga xam ne moom la samp fa mu xalaat àgg fa yal na romba loolu ndax selu ku nu war a ñaanal la risque yi muy jël ngir ñëw couvrir bari na yàlla na nu yàlla defal ndimmal bettanu ci yow ci wér péléng ak i teraanga incha allah barke xalifatu rasul jërë ngeen jëf sanga bi ne ñu jëfe ndigalum woy juróom bu tedd bi ànd ñun ñëpp jëfe ñaan gi ci ñetti ñetti Seydina Limaamu Laay ya ñu fas ci sunuy Amin. ñu ñu ñu déglu sëriñ bi nee nañ nañu ko jéggal dafa am samaam samaam ma Mandione ci baat bi ñu yëkki léegi sunu ko defewul woon nii du ci wax danu ko yàq dan ciy dàmma lu bari ba li samaam bàyyi woon di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu yokk ca ba yàq ko ila nii koy waxe sang bi ne e eh, booboo sa bokkul égal zéro mooy zéro maamam Seydina Mandione pàppam moo ko enregistré denc ko moom mi di wax fa la ko dégge noonu la maam Njoon daan waxe mu ngi ko jële ci Baye Mbay Sarr mu jël ko ci yont yàlla lañ Sarr ne bi nu ñëwee ñun ñun Ablaye Thiaw ñuy ee rek di dem nanu ko jéggal macha allah